jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu am kontaan ak mbégte euh, comme niñ leen koy defalee saa su ñu toog ak kenn koo xamante ne kenn du ko présenté muy suñu papa Pala Diop euh, ñëpp xam ko ci làmb euh, père Pala maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur wasaare lamb yëpp di am contentement ci seen suite bi bu baax a baax di la fay di la ndokkeel. Euh, Père Palla moment bi ñu toll nii dëkk bi toll na foo xamante ne yëngu na loolu euh, muy ji diggante ñaari acteurs politique mais digg bi ci ñaari doomu réew la jóge euh, moment boobu ak réew mi yëngu-yëngu bi muy bi mu yëngu ba léegi ban ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am de mooy la góor ga waxoon rek maam Abdou mu baax ma. nee na boo yéegee ci gaal bul ñaan yàlla sa gaal sa ëmb mucc ñaanal gaal gi mucc nga mën a muccaale kon nag dañuy ñaan suñu réew mi mucc lii nga xam ni dugg na fi yàlla suturaal nu ba mu jóge fi ci jàmm ak salaam ndax boo dégloo ñaar ñi ko seq président de la république nee na ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi benn bopp kër mënu koo xar ñaar bi nee na ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi benn bopp mënu koo xar loolu ñu wax moo am kon nag ñi ñaan yàlla daal déggoo ba jàmm mën a am ci réew mi ba ñun ñëpp kenn ku ci nekk dellu si sa liggéey ñaan yàlla feebar bi ci réew mi itam yàlla jëlee ko fi ba li nga xam ne ci la ñuy yëngu yàlla mën ko def yegg fa ñu ko bëggee. Mhm. Euh, Père Palla bi muy jóg ñu bari ñu ngi naan yàlla buggul ku yee fitna mm. ndax njortoon nañ ne bu jógee fii lay mujj est-ce que jotul woon bi muy jóg rek ñu teel cee dox tànki jaam a ci ndox bu sedd buur day gaaw ndax loo xamante ni mooy la ma la waxoon sànq. ñi ngi ci gaal gi am na capitaine coow bu amee ñaara ko seq na capitaine bi jóg wax mais boo bàyyee ba jaan ji topp nga topp dóor ci wati bi fekk jafe-jafe am na ku nekk xam na li xew ci réew mi barka démb ah Afrique ak Europe ak Asie yëpp ci ñun la ñuy waxtaan. kon nag yu mel nii dafa baax bu amatee ñi nga xam ne ñoo seq réew mi ñu teel a daje toog waxtaan parce que réew mi yëpp tàkk na lu bari yàqu na fi jafe-jafe yu bari xoolal ñaata moor moom moo fi am te yooyu daawul Sénégal. kon daal lii jàngat la ci Sonko waaye jàngat la ci président de la république waaye jàngat la ci ñi nga xam ne mooy gouvernement am waaye jàngat la ci population bi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk Sénégal lii daal kenn ku ci ne war nga ci jëlee jàngat boo xamante ni war nga jàpp ni lu mel nii warul amaat war nañ ci mën di waxtaan. pour jàmm dellu si hmm. ngeen déclaration bi nga xamante ne président defoon na ko ne dossier yu bari da ci teg coñcoom est-ce que dossier président Ousmane Sonko bi woon ñu teg ci coñc bala muy mujj fii ñu yàqal ci ñu bari rawatina ñi nga xamante ne euh, seen liggéeyu bopp la ñu yor. ah kay parce que bi ma dégloo message message de la nation bi nga xam ne moom la président de la république def ci fin d'année bi def conférence de presse gaa yi wër mu wax waxam jooja. xamal nit ñi ni am na yoo xam ne moo ci teg cencom dama ni kii xam na ni muy jiitee réew parce que li tubaab naan toute vérité n'est pas bonne à dire loolu moom mooy lii mu wax tey am na loo xamante ni fay ko ca fayukaay ba moo gën nga bàyyi ko ba mu yànjal taal bi lii président wax daal ñëpp rafetlu nañ ko waaye bi lii ñëwee te tegu ci concam ñëpp jaaxle nañ mbirum Sonko mi lu ñu waroon a teel a teg conc la saafara ko buy continuer tamit du doon loo xam ne nit ñi bàyyi nañ ko xel waaye bàyyi daay gi di dem di dem di dem ba yegg foo xam ne waru foo na yegg nga doog a wax man ñaawlu naa ko lool ñaawlu naa ko waaw. père Palla li ci gën a ñaawlu mooy ñi nga xamante ni si say njaboot la ñu bokk. ndax ku ne père Palla tudd làmb ñu dem ba gis say njabootu làmb ñu jël leen ñu nekk ay nervi di attaqué ñi nga xamante ni ñooy population bi ñu yor ay jaasi ñu yor ay yat euh, bi nga gisee loolu ban gis-gis nga ci am. waaw man jàpp naa ne ñooñu bokkuñ ci làmb parce que njobootu làmb ñun xam nañu leen. maa ngi profité di nuyu président association nationale des écoles de lutte et des écuries Malick Gningue ñun xam nañ ñi bokk ci làmb ñee tur bañ leen di woowee ñoom seen tur boobu la Gros Bara bañ nañ ko ba Gris Bordeaux bi ñu koy jaawaleeg nit dafa génn wax leen salle musculation ba mu nekk bañ fa demee xam nañ ni kooku du ñun ñi nga xam ne yàgg nañ ci làmb xam nañu ci bare bare bari ñu ñu yàgg daje ci làmb ñu ñuy garder ay bunti stade ak ay concert ak ay làmb kon ñooñu du ñu mbëru làmb ay guro bara lañ nañ ko raw nañ ko wax du nag ku jóg rek reg rek yor bind bu mel ni saako ceeb ñu daan ne mbërum làmb ngi nii déedéet mbëru làmb yi dañu yor ay licence te écrit bu ci nekk xam nañ ñaata mbër a fa ne xam nañu ñaata écrit moo nekk ci réew mi xam nañ association yi ñaata lañ xam nañu mbër yi ñaata lañ mais nañ ñooñu ñu jàpp liste nañ leen liste yi ñooñu xam nañu leen nañu dem xool ci liste yooyu ndax ay mbëri làmba ngi ci ay guro bras la ñu tudd. ñàkkul ay mbër ci nekk. waaw mën nañ am ay benn benn waaye dama ni li nga xam ni ñoom ñoo wër mbir moom ñi ci ëpp ay guro bras lañ bu ci mbër dee nekk benn benn lay doon mais ñun ñu ñu gis ci télévision yi mënoo ni kee diw la wala kee diw la moo doon bëree làmb sàmm. li ñu wane pick-up yi ñu ci télévision bi ñun ñu teg suñu bët identifier leen xool leen amul benn nit boo xamante ni ñoo yéegoon ci pick-up yooyu bu ñu ni kii mbërum làmb ci lu ma gis man paa la waaye nag du ñàkk ay benn benn yu dem ànd ki politicien wala yu mel noonu loolu moom ñaawlu naa ko wax dëgg yàlla même boo dee mbër am licence bokk ca ñaawlu naa ko waaye li doon dàqaate ànd ak ñun gis ko ñun xam nañ ñi c'est des gros bras xam nañ ni ñii duñu ay mbër parce que ñun ay manager lañ te mbër yi am licence yëpp di bëre ci làmb ji xam nañu leen yéen xam ngeen leen. nag ba tey gros bara yooyu ko def ak mbër moo xam ne bokk nga ci ñi ngi koy ñaawlu bu baax a baax. waaw da ngay dàq li nga xamante ne ministre de la république wax na ko ne ñi doon mars ay mbëru làmb lañ eh, ñoo doon mars ñoo doon yàqate lu bare bare. gis nga man bi ma déggee waxi ministre de la justice boobu man damaa tiit te gis nga dañu ne boo tiitee na nga dese fit boo wéetee ñu ne da nga gore mbirit bu ñëwee lu mu xumb xumb lu mu rëb rëb rëb na nga dese xel waaye ku déglu waxi ministre boobu doon wax ma déglu ko man dama xam ni kii dafa tiit dafa jaaxle. noonu nga mën a tuddee. noonu laa ko mën a tuddee parce que boo nee làmb dafa gëj a am. ci li ma dégg man ci bi. mbër yi bëreetuñu fi ñu daan entraîné ci booru géej yooyu entraîné tuñu fa cas yu mel nii ñëw ñu wane seen bopp mais yaa ngi nax sa population di nax sa bopp loolu amul moo tax dama ni kilifa dina juum kaang dina juum moom dafa juum te nag na jéggalu population bi na jéggalu axlu làmb parce que am na loo xamante ni en tant que kilifa nga koy wax ci euh, chaîne européen bi te hésité wuloo mais ñun ay responsable écrit lañ mais xam nañ suñuy écrit amul benn nit bu fa jóge dem ci lu mel noonu su fekkente ni nag bu bëree jotee ñu bàyyi sport bi yëpp di sport ñu téye waa làmb course ngay dox football ngay dem basket a ngay dem judo ngay dem course ngay dem yàgg naa ko wax wax naa ko ci seen bi site bi ñu bàyyi ñooñu ñuy def ñu téye waa làmb dem ba coow juddu ñu ni làmb dañoo gëj a bëre kon ci coow li si ñoom la jógee le ministre bi wax nii na xoolaat boppam xoolaat taxawaayam xool digganteem ak yàlla xam ne loolu mu wax tubaab ba pour tubaab ba gëm ko demewul noonu. beneen ministre bi wax ne euh, ñi doon mars yëpp ay terroriste lañ kon kooku noonu foo ko mën a teg parce que Sénégal euh, buñ ne ñëpp ay terroriste lañ ni ñëpp ay mbëru làmb lañ kon Sénégal moom fi mu toll nii caay bu amul ñor la. xam nga terroriste moom moo bu garaaw la man de mosuma gis terroriste sama bët dama koy dégg wala si télévision yi kon nag nañu yemale wax yi gis nga waxoon naa la ko sànq communication ak am solo communication day taar réew waaye day fay réew communication dafa doy waar ba yow lu mu rëpp rëpp rëpp xumb xumb kilifa nga sooy wax na nga jiital yàlla ci sa kanam jiital dëgg ci sa kanam waxte yàlla tax su ko defee jàmm mën na am mais ay terroriste ki ay mbëri làmb mbëru làmb yi ñu ngi leen di tooñ mbëru làmb yi dañoo am seeni licence am ay kër tabax ay kër yu baax yor ay oto waaye doo fekk koo xam ne danaan topp mbër wala koo xam ne toll ne ni mbëri yi mbaa mu làmb ji mënatul dem mu wàññi ku dem defi garde reproché ñu koy tudd ci la yor kuuram di dàqe ñu ni mbëri làmb yi loolu ñaawlu naa ko ci ministre ba ko wax. kii nga xam ne mooy ministre de l' intérieur dafa sensible ku ci dem bay wax na nga xam ni ngay waxee na nga xam ni ngay toogee na nga xam ni ngay jëflantee parce que réew mi ñun ñoo ko bokk te ñoom ñooy suñu roy waaye ñoo jiite réew mi seeni wax dafa am solo kon bu ñuy wax nañu wax loo xamante ni day apaiser ñu wax loo xam ne day defar nañu wax loo xamante ni parce que réew mi président de la république wax na ko démb. nee na benn bopp kenn mënu ko xar ñaar. te soo dégloo président de la république bi ni mu waxee nga xamante ni kii bu sañoon jàmm dina am ci réew mi waaye boo dégloo tamit Sonko na mu waxe nga xam ni kii di wax bopp la. waaw mais kon nañu boole seeni xalaat pour jàmm mën a am man daal jàmm laay woote ci réew mi di wax ni nag ni kilifa yi nañu moytu njuumte wax loo xamante ni ku ko dégg da koy ñaawlu. mbër yi ami bokk dëkk ci réew mi am fii teraanga nga dem ci nga dem bar seen euh, européen yi di wax wax ju rëy ju mel nii nañu ko moytu. loolu tamit bokk na ci liy taal daay de mbër yi mer nañu de famille mbër yi mer nañu de ñun ñi nga xam ne ñoo jiite mbëri yi yor ay association man mii di wax ak yow président écurie Pikine Mbooloo. Pikine Mbooloo mooy le premier écurie bi nga xam ne moo mag ci pikin fa la ñoom xale yëpp génnee ndaanaan yëpp ngay dégg Pikine fa la ñu génne nekk manager de lutte nekk tamit consultant à la 2STV kon bari na lu ma xam ci làmb waaye waaye na ñëpp woote jàmm ko xolli ko koo koo koo koo wax lakka neex ngeen juboo waaye ko wax lakka ka ngeen juumoo ministre bi nag loolu mu wax te dugal ko ci audio yi ñun ñu dégg ko naqari nañu ñaawlu nañ ko ministre de l'intérieur it na xam ni réew mi ay doomam lañu ay xaritama fi ne ay soppee fi ne moo coiffé réew mi lépp luy def jàmm na joge ci làmmiñam loolu daal laay ñaan di ñaan jàmm di wax ni suñu làmb ji aussi nañ ñu ko ubbil ñu dàq stress yi dellu ca suñuy po làmb stade euh, arène nationale vingt cinq mille places la nañ ñu may dix mille places nit ñi jël distance soriyantoo lool mesure de barrière yi ñu rax ñu ñu takk masque raxasoo suñu sel ñëw di tëgg làmb Sénégal jëm ca kanam sport yi ñu fi ubbi yëpp d'accord ay sport yu am solo la mais làmb leneen la kon nag loolu la ñuy ñaan président daal di ko ñaan ministre des sports itam na jàppale waa làmb suñu waxee loo xamante ni dafa jóg di dal ci waa làmb te ministre des sports tel koo yëg na woote conférence de presse wax ci loolu te ñu bàyyi parparloo gi parparloo day tasum réew yal nañu yàlla dolli jàmm amin Père Palla mais li ñu gën a yéem mooy est-ce que li tax ñuy joxañ tuuma saa su ci njabootu làmb ci yu mel ni est-ce que njabootu làmb amuñu ci part de responsabilité parce que président bi fi nekk actuel muy président Macky Sall euh, bi muy campagne ñan ñoo ko doon campagneel ci njabootu làmb xam nga loolu histoire la làmb musul tàggoo ak état ca Senghor Senghor jamono yooyu mbër yi xewoon ñoom lañ daa àndal Abdou Diouf ku nekk gisoon na jaloore yi mbër yi daan def di ànd ak moom muy recevoir mbër yi Ablaye Wade bi mu ñëwee moo fi njëkk a woo mbër yi ak écrit yi may leen xaalis bu jeex neen toppatoo leen seen bopp bi Balla gay xeexee ak ki nga xamante ni a astafurla ak Modou Lo Ablaye Wade leen woo bi jubóole ku nekk gisoon temps socialiste ñoomin yaa rax mu tubaabu jor ñu daan topp Tanor Dieng te loolu yëpp dafa rafet Macky Sall am na mbër yoo xamante ni ñoo ngi moom a faroon ba mu yegg si fii mu yegg si kon mbër ak euh, lële ah, yàgg nañu ak euh, état waaye lu jëm ci rébellion maanaam yor ay yet di dóore ak di xeex dafa sensible ci côté làmb parce que tey bu la nit rombee fii rek tol ni ko neex ñu ni kii xanaa mbër la ponkal bu la rombee fii rek sol blouson yaaxar yaaxar yi ñu ne xanaa kii mbër la wala xoolal mbër ma la di dem yow kii ban mbër la waaw na dem bëre ji wala kee mooy ban mbër noonu mu noonu ci xelu nit ñi tey bu yu mel nii xamee ñu dem wut ay ponkal Gris Bordeaux wax na ko wax na leen kiñ ko doon nuróoleel saal ba mu am ca parcelle wax leen ni mu tudd pourtant Gris lañ ko tegoon noonu ñu ko tegee Gris noonu la ñuy gisee ku nuroog Balla wala ku nuroog Sa wala ku nuroog tonnerre wala ñu daan di mbër yaa fekk déedéet ñi dañoo gudd rëy rek mm. waaye gudd rëy taxut doon mbër. Modou Lo tollu nen roi des arènes mm-hmm. ana bàcc seeraas mm-hmm. ana Siteu mm-hmm. ñooñu kenn réussite doon nga mbër doon nga champion kon gudd rëy taxul doon mbër nañu moytu ku rëy rek ñu ni mbër yaa nga man daal maa ngi eh, woote wax ni nañu may jàmm réew mi. waaye tamit nañu bàyyi seen xel ni lii di xew nii guro bara yooyu buñ leen askane làmb parce que du waa làmb ndax xam naa suñu bëree bari nag ñoo xam ni seen i tur sax nañ ko mi ngi ci télévision yi suñu demee dinañ aller vérifier dinañ xam ndax ñii ay mbër lañu wala duñu ay mbër te ñii mënuñoo na bu ñëpp leen xam nañu dem seeti leen ailleurs te bañ a ñëw ci secteur làmb seet leen fi voilà. jërëjëf Père Palla ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ci dalal waaw man itam maa ngi rafetlu wasaare parce que ñoomit it li tur wi rek muuyu na borom ñi ngi wasaare. tey ñu bëree bëri ñi ngi am ay expérience si lamb wala di ci xam dara seen nangu liggéey ak seen takkute bi ngeen di def di ñëw seet si nit ñi jël leen ñu wax seen xalaat loolu bokk na ci li wasaare. Hmm. kon nag wasaare boobu tur wuyu na borom wasaare daal ca kanam. jërëjëf